Euh, Mody Guiro euh, il est en ligne mun nañ waxtaan ak moom ndax xam nañ ni moom itam il a traversé traversé les âges Euh, de la politique ci cadre syndicalisme bi nga xam ni euh, moom lay yëngu di représenter partout ñi nga xam ni ñoom ñooy travailleurs yi ak consommateurs yi buñ ko waxee nag xel yi dem ci ñi nga xam ni ñooy fonctionnaires yi xel yi dem ci agent public yi xel yi dem ci travailleurs privés yi xel yi dem aussi euh, ci artisans yi ndax ci centrale syndicale ba mu jiite corps de métiers yëpp ñu ngi fa bu fekkee ni mu ngi ñuy teewlu secrétaire général Mody Guiro ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau Euh, spécial euh, soirée électorale sur Mourchid TV. salaamaaleykum maa ngi nuyu ngeen fay yéen ñëpp. di nuyu ci plateau bi yëpp. di wax ni débat bi neex na te actualité la. ñoo leen di gërëm di sant aussi ci mu ngook yaakaar naa bu ñu dégloo waxtaan wi ak ni ñu toogee dinga gis ni daanaka say njaboot rek euh, ñoo fi toog ñëpp mun nañu wax ni ay liggéeykat lañu ak itam ay consommateurs ndax même liggéeykat bi consommateur la ngay secrétaire général confédération nationale des travailleurs euh, du Sénégal li ñuy waxtaanee fii yëpp aju ci secteur boo xam ni bari nga lu ngeen ciy liggéey yéen muy secteur euh, informel bi lu ci bari ak secteur consommateur yi tey jii ci campagne électorale bi ñu nekk jëm ci quinzième législature yaakaar nga ni. Euh, daanaka le mouvement travail en tout cas ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee les euh, ci Sénégal mu secteur bu mu ci mënti doon moo xam ci mbay mi moo xam ci càmm gi secteur primaire beeg secteur euh, secondaire bi est-ce que jàpp nga ni représentation bi nekk na lu positif quand jëm ci quinzième législature bi ñu jëm. waaw ah, xam nga nga dañ nekk nag dans dans un pays démocratique. Mhm. démocratie mooy. citoyen bu nekk ak foo mënta féete ak loo def mm-hmm. am ngay sañ-sañ am ngay wareef mm-hmm. yooyu nag ñooy may citoyen bu nekk bu jamono yu mel ni amee mm-hmm. ñenn ñi mën nañ organiser ay parti politique ñenn ñi nekk seen ay coalition ñenn ñi dem seen seen ku ci nekk yaakaar ne xëy na fa nga mën a féete soo demee assemblée di nga mën a jëriñ askan wi ndax askan wi nag moo ndax jóg askan wi mooy réew mi donc loolu mooy la am solo mais ñi nga wax ñëpp mu ngi koy gisee ay liggéeykat lañ ñu ñàkk ñu ñàkk parti ay liggéeykat lañu ñu nekk ci plateau bi ñoom ay liggéeykat la association de consommateurs yeeg euh, artisans yi ngay wax ñoom ñëpp c'est des travailleurs bu travail moom du jóg parce que liggéey mooy yore réew moo nit te dignité aussi mënuloo kam te doo liggéey ndax nit ki dignité mi koy conserver ci liggéey bi muy def donc c'est fondamental te réew bu liggéey ñuy liggéey aussi réew moom du avancé réew yi fu ñuy rawantee rek mooy ci liggéey ci organisation ci discipline ak innovation loolu nag loolu mooy permettre ñenn duñ gën a avancer ñeneen ñi liggéey moom c'est fondamental kon ñi ngay wax ni am nañ ci droit am nañ ci sañ-sañ man li may faral di wax sax mooy mouvement consumériste ngay wax parce que da nga ko un vrai mouvement consumériste mm-hmm. liggéeykat yi ñoo ko parce que ñoom ñoo war a xam lan moo metti mhm. lan moo cher lan la banque def ni ko waxee fii mhm. loolu yëpp mën nañ ko retrouver loyer bu cher bi parce que duñ ko wax quelque fois mhm. et cetera et cetera l'école bu cher bi yenn décisions yi yëpp nit ñi dañuy yëg ci askan bi un mouvement consumériste fort porté par des travailleurs au moins mën a régler kon loolu dama koy faral di wax parce que day am ceeb bi léegi affaire yoo xam ne syndicat yi ni syndicat ma ne ceeb bi syndicat yi rek doo koy lekk mhm. citoyen yëpp a koy lekk mhm. donc un mouvement plus large boo xam ne liggéeykat yeeg béykat beeg nappkat beeg ñëpp dañ ci nekk c'est un mouvement consommé même les fonctionnaires tout le parce que dañ koy yëg mhm. ñoom ñoo mën a porter donc ce de de de encouragé mm-hmm. ci loolu ñuy def parce que ci nekk ak sa vision mm-hmm. ak sa défi mm-hmm. sa combat bi nga mën a woon ak secteur bi parce que am na ñoo xam ne gis nañu ay frustration lañuy lañuy génne ñaxtu jooytu am yaakaar ni kenn jël ko en charge ñu ne nañ bàcc seen daara seet yenn daal leen gën a mën a mooy génn ci débat yu mel nii waaye li am solo daal lépp lu am solo ak na mu mën def avancé réew mi mhm. nit ñi nañ liggéey nit ñi nañu euh, liggéey yaakaar naa ci biir waxtaan wi am na ay euh, problème yu sérieux yoo xam ne aussi euh, solover nañ ko bokk na ci yéen xeex bi nga xam ne yéen a ngi koy xeex boobaal léegi ay at a ngi nii lu jëm ci wàllum formalisation bi ndax xam nañ ni secteur informel bi quand même jafe-jafe yu bari yu ñuy jànkoonteel mu ngi jóge ci ñàkk xam exactement la nga xam ne moom mooy régir secteur bi ñuy yëngu dégg nañ fi sànq ni déjà si Sénégal amul sax législation boo xam ne mooy régir le secteur artisanal sans doute ay chantier yu mag la yoo xam ne aussi euh, faw ñu soobu si te nag en première ligne ñoom acteurs yi nga xam ni déjà ñooy dund jafe-jafe yooyu ndax mun nañ wax ni euh, lu ni mel xel war na koo mun a jàpp jëm ci euh, législature bi ñuy dëgmal. waaw amul boo jëlee ne war nga tudd secteur informel jëlee secteur informel bi dafa yaatu dafa dafa. Mhm. dafa dafa yaatu. Mhm. dañuy fa di wax secteur informel suñu réew yi xamuñ fu mu commencé fu muy taxaw. Mhm. kon yoo xam ne nag dañ yaakaar ni am na loo xam ne gouvernement moo ko mën a régler. Mhm. parce que am na tey ñoo xam ne dañuy am seen structure ay entreprise lañu yor yu ndaw yu PMI yu ndaw yooyu état yi dafa war a gunge ñu formalise ñoo formaliser leen du jafe. maam un accompagnement bu ñu war a def. artisan yi ngay wax ni si bëri presque seen entreprise lañ doon ak pays ñuy laajte yu bëri am nañ ko mais réew lañ nekk yoo xam ne presque soixante soixante dix pour cent une population dafa nekk ci informel te réew boo xam ne ci informel la nekk da ngay fexe ba informel boobu mën na avancer mm-hmm. maanaam mën ñu structure ñu formaliser ko mm-hmm. mais loolu pour mu am pour mu gaaw il faut que état bi crée des relations de confiance mm-hmm. entre les acteurs ak moom mm-hmm. souvent yu mel ni mooy tax relation de confiance boobu day manqué mm-hmm. or au niveau international ay jéego ngi am am deux cent quatre ñu koy génne na yoo xam ne ay ay dogal la au niveau donc des de la législation pour wax ni lii lañu war a defee pour gunge secteur informel bi mhm. fexe ba mu am formalisation fexe ba muy am salaire décent fexe ba mu am faju muy faju comme ñëpp mhm. ñu am sécurité sa di ko am bu amee a feebar ñu faj loolu yëpp dafa nekk loo am importance te suñu réew comme ni ma ko waxee mhm. soo amee population bu toll noonu munoo ko sàggane góor te ji ci ëpp ay jigéen lañu ak ay jeunes. réew moom boo ko amee nag xam nga ëpp sa moitié population. Mhm. ay jeunes lañu. Mhm. te ñu bëri mënoo leen def liggéey. ñenn ñu ngi déglu nekk secteur informel da war a am aussi politique yu leen gunge. Mhm. te politique yi mun na fi nekk mun na am. solidarité yi ñuy wax am na réew yoo xam dañuy def ay jéego. pour gunge leen. ay facilitation. def nañ ci aussi ay jéego Sénégal. waaye loi yi jël maanaam les régimes simplifiés yi ñuy wax dañ ko war a appliquer nit ki nga xam ne dangay ore nekk artisan nekk secteur informel yore sa benn liggéey fii sa atelier wala sa bi ñu ne la lii boo ko joxee par weer da nga am retraite da nga am sécurité sociale yaa sa doom ak say soxna bu ñu wasinee wala ñu ëmb di joxe as ñu bañ leen na oj loolu dañ ko war a def ñi nga xam ne nag ñoo ëpp doole am ci solidarité boobu ak ndimbalu état bi li mu war a dugal mooy xëcc ñi ci des ñu nekk ci suuf bu ñu xëccee ñi ci nekk suuf buñ gënee am doole ñoom ñoom dañu mën a continuer ku ci nekk mun nañ ne sénégalais mën ngaa contribuer néew néew néew tan boo defee loolu ñu ne pour ñu gën a néew doole la mm-hmm. pour les jël leen en charge ci wàllu protection sociale boobu ñuy wax. fexe donc mu am ay yoo xam ne day créer des relations de confiance. entre les acteurs économiques entre les populations et l' État. te loolu mën na nekk. mais loolu pour mu am il faut aussi mu am des politiques inclusives. un dialogue permanent entre les acteurs et les décideurs politiques. muy état ndax état mooy manager principalu réew état mooy manager principal réew ñeneen ñi ay acteur su fekkee ne manager bi li muy def yoon bi tegu na ci raay rek li ci def day yomb mu ngoog balaa ñu lay bàyyi nga xam ni balaa aussi euh, daanaka boo xoolee bu baax ñi nga xam ni tey ñoom la ñuy identifier ci mouvement artisan artisan bi nekk ci Sénégal ak consumériste yi ci biir campagne yi ñu ngi doxal euh, campagne bu stable campagne bu calme wute lool ak li nga xam ni moom la ñuy gis ci terrain bi gis nañu sax communiqué boo xam ni confédération nationale de travailleurs du Sénégal génne nañu ko jëm ci violence électorale yi nga xam ni moom la ñu nemmeeku ci fan yi ñu génn euh, sans doute du ñàkk nga war si mun a dellu si encore une fois gis-gisu kuréel gu mel noonu toll noonu ci Sénégal ci euh, contexte politique bi nga xam ni moom la ñu ne. d'abord dañuy wax ni ñun dañuy condamner violence ak fu mu mënta jëm ndax violence mooy ay kenn soxlawu ko kenn bëggu ko te ay doxal réew dañ nekk ci pays bu daan démocratie lay def élection démocratique la def kon ñu. def loolu ni ni ni ni ni ni bëgg histoire wala xeexoo ngaay amu amu yoon ñoo ngi sant suñu borom la parce que démb tension bi yéeg na waaye ñu sant suñu borom ba nga xam ne leader yi yëpp ku ci nekk wàccee nga pression wàccee nga tension bi delloo si xel yi parce que élection yi dañ ci war a xel mm-hmm. xam ni bu passé aussi Sénégal benn bopp la kenn mu ko xam la ñii di ŋaay xëccoo ŋaayoo tuba aussi dañuy gisante rek parce que ay doomu ndey lañu ay bokk lañu ay xel. Mhm. famille boo dem tey amul benn parti yëpp nga fa. Mhm. parce que démocratie biir famille la commencé. Mhm. ku ci nekk yaa ci parti bu la neex. te pourtant boo di jotee ñu sëkk añ. xuloo xeer quelquefois débat yu tàng. waaye buñ demee ku nekk dem boo booteel ku la neex ànd ak ku la neex buñ paree dellu si. jàmm jooju nañ ko sàmm. ndax réew bu amul jàmm kenn du am jàmm kenn doo mën a liggéey kenn du nelaw picc na day am liggéeykat bi boo demee du da dal bu ñibbis du ànd ak xel wala nga liggéey ba pare ay sàmba booy dugg ci yàq sa liggéey toj parce que am na ñoo xam ne violence boobu moo leen di arrangé sa mbaxloo bi rek ñoom boutique yi ñuy repéré dem toj ko dem jël alalu jàmbur dem c'est pas autre chose duñ si ay politiciens duñ ay militants ñu dara dañuy rax te quelquefois ñàkk mooy gën a gaaw defar kon ñu ngi wax ni daal en tout cas violence dañ koy condamner fermement état na moo yore responsable kaaraange citoyen bi alalu citoyen ak ak réew mi kooku aussi dañ ko war a assumer ku def la nga warul def suñ la jàppee ñu teg la ci yoon mmh. loolu daal lañ mën a wax mmh. mais lancer un appel acteurs politiques yëpp dëgg yàlla nañu wax nañ jàmm ñu doxal jàmm ñu dem ci élection yu calme yu des élections transparentes et démocratiques pour lu waaye am lu la yàlla jox nga xam ne loolu la yàlla jox dañu bëgg nag mooy génn ci élection ci jàmm ak salaam Sénégal dem ci liggéey liggéey lañ soxla te liggéey àndul ak coow lu bëri on ne travaille pas. buñ ko waxee buñ ko waxu yëpp ñu ndax suñu bopp. on alors que nit ñi dañ soxla liggéey. tourner la page de la de la politique. aller à l' essentiel. pour le Sénégal. am ay taux de croissance yu normal yu ñu bëgg yu i yi ñu fee fekkoon fexe ba jafe-jafe yi wàññeeku. ak nit ñi dañu sonn. ku la nee nit ñi sonn dañ lay nax. donc fat lu fat fat di coono boobu nag. li ko mën a indi mooy ñu dépassé élection yi. Mhm. fal député yi ñuy fal gouvernement bi liggéey ñu jëmalee réew mi kanam. Mhm. ku ñu fal député nga nekk député boo xam ne réew mi la tax jóg. Mhm. les députés de force de proposition la. da nga am sa xalaat wax ki nga bëgg a waxal ñu ngi représenté représentation la. beneen bi mën nga nekk une force de proposition. Mhm. bu amee loi dañuy trouvé de choses qu'on peut réformer. Mhm. troisièmement c'est de contrôler l'action du gouvernement. Mhm. donc yooyu moo fi nekk. li ci des mën nañ ko def. ci fulla ci la ci xam-xam. ak ci tey. xaw ma nan lañ tey quoi en sérénité. man daal loolu laa nag jël Sénégal di nekk au-dessus de tout. parce que Sénégal moo ñu moo ñëw. moo ñu gën ñun ñëpp moo ñu sib ñun ñëpp voilà loolu laa moom lu may wax di en tout acteur politique ci loolu jërëjëf. jërëjëf di ko jaajëfal bu baax euh, moo di giro secrétaire général confédération nationale des travailleurs euh, du Sénégal doon euh, addu ci li nga xam ni tey mooy taxawaayu mouvement artisan bi ak consumériste yi ci campagne électorale bi ci quinzième législature bi mu nekk taxawaay boo xam ni lu ñu war a mun a xaar la bu ñu gisee bu baax contexte bi ni mu tëddee wax na ko amal lépp ci dal yaakaar naa moo gën fuuf surtout bu ñu dee xool jamono ji campagne bi anam bi nga xam ne noonu lay doxee ak violence électorale nga xam ni moom la ñuy dund Kalidou. Mm-hmm. ça c'est vrai li mu wax dëgg la. bon mbir moom boo ciy dugg dangay ngay ñaan yàlla dugg ci ak bismillah te nga génn ci ak alhamdulilah parce que tey li mu wax c'est important Sénégal moo ñu mag te dañuy dem bàyyi ko fi kon donc mënoo fee def lu fi kilifa yu mag yi defoon Senghor jaar na fi mu Dia jaar na fi keneen ak keneen jaar na fi te ku fi jaar da ngay ñëw def li ngay def ak dem sa yoon. donc fii kenn mënu fee def li nga xam ni kenn mësu ko fi def lu ñu def rek defaat la donc de ce fait que nañu campagne ci jàmm waxante jàmm surtout jàmm parce que Sénégal la